بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu xam ngeen nuñ ko baaxoo mooy mardi dañ daan am kitaabu tawxid waaye dañu nekk ci sahrul muharram mooy weeru tamxarit te weer wi am ay ngëneel ñu bëggoon cee fàttali mbokk jullit yi xéewal yooyu nga xam ne yàlla tabaraka wa taala defal nañu ko ci weer wi ak li ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam soññaate moo tax ñu aj kitaabu tawxid bi ba semaine bi di ñëw insha allah mooy fadlu shahrul muharram mooy ngëneelu weeru tamxarit comme ni ngeen ko xamee weeru tamxarit dafa bokk ci weer yi nga xam ne yàlla moo ko jagleel boppam weer la woo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ko séddoo ginnaaw weeru yàlla la tabaraka wa taala yàlla def ci ay xéewalam ak ay barkeem yum ci def mu ne jëlee nañ ci sahaaba tudd abi bakra mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna zamana qad istadaara ka hayatihi yowma xalaqa allahu alsamawati wal arda isna ashara shahran minha arbaatun hurum thalaasun mutawaliyat zul iqda wa zul hijja wal muharramu wa rajab mu ne wa rajab nag mu daaru lazi bayna jumaaday wa shaaban muttafaqun alayhi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci ngëneelu weeru tamxarit mu ne jamono yàllaa ko bind tënk ko mu ne am na ci bis yoo xam ne ba yàlla bindee asamaan ak suuf yàlla tànn na ci fukki weer ak ñaar fukki weer ak ñaar yooyu ñoom ñooy atu jullit yi mu ne fukki weer ak ñaar yooyu am na ci ñeenti weer yoo xam ne ñett yi dañoo toppante benn bi daal di beru yu toppante mooy ban zul iqda zul hijja ak muharram mu ne rajab nag dafa nekk ci diggante jumaat yi ak saabaan kon moom mooy bi beru ñeenti weer yooyu yàlla da leen ormal ba dañoo tere ku ci jalgati dañoo tere ku ci xeex même arab yi bi diine lislaam ñëwul dañoo respecté woon weer yooyu ndax ni ñu xamee ne weer yu am gëdd la ci yàlla tabaraka wa taala liñ daan kàccoor di saay-saay di def lu bon weer yooyu bu teree bu teroo dañ ci dañ ciy yem mu ne wa huwa min azami suhuri sana moom weeru tamxarit dafa bokk ci weer yi nga xam ne moo gën a màgg ci weeri at mi lu tax azamahullah ndax yàllaa ko màggal wa sharafahu yàllaa ko teddal min bayni sa'airi suhur ci diggante weer yépp moom weeru tamxarit weer la boo xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko màggal loolu moo tax mu tere ku ci ku ci xeex moo tax mu tere ku ci def lu bon gis ngeen yonent alayhi salaatu wasalaam ci la gàddaay yenn saa yi sax nga dégg ci ay téere ñu naan la yonent sàngam def na ci nàngam yonent sàngam def na ci nàngam ñu lay limal li la limal aadama bis bu ko yàlla génnee aljanna bisu tam xarit bi diw bi ko yàlla defee nàngam bisu tam xarit la ibrahima bi ko yàlla sëfe bisu tam xarit mu yenn saa yi nga dégg yenn ci borom xam-xam di wax loolu ndax bis weeru tam xarit ni mu màggee mu ne yàlla moo ko màggal moom weeru tam xarit min bayni saa'iri suur ci diggante weer yépp nag wa adaafahu ila nafsihi tasharrufan lahu yàlla jël weer wi daal di koy jagleel boppam ne weeram la kon lu yàlla jagleel boppam loolu lu ngeen ci xam mooy màgg la ndax yàlla du jël lenn féetal ko boppam ba pare loolu ndaw parce que yàlla du ko ndaw loolu moo tax comme ku màgg la lu mu jagleel boppam rek dafay màgg moo tax moom yàlla dafa jagleel boppam weeru tamxarit ndax màgg gi màgg mu ne wa isaaratun ila annahu xaramahu bi nafsihi wa laysa li ahadin min alxalq tuxalliluhu moom yàlla moo ko jël ormaal ko sange ko aar weer yi weer yi mu ne amul kenn ci mbindeef yi koo xam ne am na fit wala muy dindi loolu nga xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko def gis nga loolu moo tax mu ne waqad kaana al arab tuazimuhum fi ljahiliya même arab yi ci ceddo ko dañ daan màggal weeru tamxarit ndax xam gi ñu xam màggaay bi ko yàlla màggal ak teral bi yàlla teral weer wow di weeru tamxarit wa kaana yusamma bi sahri l asam min siddati taxarumihi gis nga dañ ko daan tuddee sax weeru asam ñoom noonu lañ ko daan tuddee lu tax ndax xurum gi ko yàlla jox aar bi yàlla aar weer woowu armaal ko moo tax ñoom noonu lañ ko doon tuddee mu ne waqad rajaha taifa min al ulama anna muharram afdalu shuhur al muharrama al muharrama mu ne yenn ci borom xam-xam yi dañoo lëngal ne man naa dañoo wax ne weeru tamxarit moo gën ci weer yi nga xam ne yàlla dafa leen ormal weer yàlla ormal ñaata weer la ñeent ñu ne weeru muharram moo ci gën ci ñeent yooyu mooy yi ñu waxoon sànq zul iqda zul hijja muharram ak rajab ñu ne weer ñeenti weer yooyu boo leen boolee boroom xam-xam yi nee nañ muharram moo gën ci ñeenti weer yooyu mu ne wa sawmu fi shahri al muharram min afdali tatawwa léegi nag weer wu nekk am na lu ko yàlla di jagleel ci wàllu jaamu weeru weeru tamxarit liñ ko jagleel mooy koor jàngeen ñu ne ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim daan woor ci muharram du ko woor ci beneen weer na benn weer kese moo ëpp yonent bi lim daan woor mooy weeru koor su weeru koor jeexee ban weer la ci teg mooy muharram weeru koor moo ëpp dong ci li yonent bi daan woor muharram loolu moo tax mu ne woor ci muharram moom mooy jaamu yàlla bi nga xam ne ëpp na doomu aadama di ci volontaire ndax volontaire la loolu lañ naan ta taw coobarewu la coobarewu du force weeru koor moom war ko lan la farat amma weeru muharram woor ko coobarewu la yow yaay volontaire tànn loo ci mën ci loo ci woor génn nañ ci muslim mu jëlee ci abu hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon na woor ci weer wi lu kenn mënuta lim moom yonente alayhi salaatu wasalaam wa moo tax mu ne wa sawmu fi shahri almuharram min afdali tatawwa faqad axraja muslim asiyaamu baada shahru ramadan shahru llahi allazi tadcuunahu almuharram wa afdalu salaati baada alfarida qiyaamu lleyl ñu ne weer ci weeru muharram ci weeru tamxarit woor ci dafa bokk ci ngëneel yi gën a rëy yi doomu aadama di coobarewu ci xadis bi muslim génne ñu ne woor ci weeru koor moo gën ci lu doomu aadama di woor ginnaaw wooru weeru tamxarit maanaam koor ginnaaw tam ginnaaw weeru koor su nit di jéem a xool fan la war a gën a bëri lu muy woor fan la ko war a def weeru tamxarit waaye ginnaaw farata yi tamit julli yi juróom bu nit di seet fan la war a gën a bëril julli fan la ko war a def xiyaamul lay julli guddi ni bee gënee ci coobarewu ci woor noonu la julli gëdd julli guddi gënee ci yeneen coobarewu yi doomu aadama di coobarewu te du farata mu ne waxaasa nag mahmulun ala taw taw lii ñu wax nag ci coobarewu lañu wax coobarewu am na jaamu yàlla yoo xam ne du coobarewu ndax yooyu sunna tara rawaatib la yooyu bokkul ak yi ñu wax am na sunna yoo xam ne ci koor yooyu ñoo gën tam xarit de am na julli yoo xamante ne ci julli yi ñoom ñoo gën naafila guddi lu tax ndax yooyu sunna yoo xam ne yonent bi daf cee saxoon lu mel ne ay julli fajar ay tara ak safaak witre ak gin avant tisbaar yi ngay naafila après tisbaar avant takusaan après timis yoor yoor yooyu rawaatib la suñ nee julli farata moo gën après julli farata xiyaamul leyli moo ci tegu luñ ci jublu mooy ci yi ngay volontaire di ko def coobarewu amma yi nga xam ne ata taw wala almutlaq volontaire bu ñu boyal yooyu lañ wax mu ne amma almuqayyad bu fekkee yi ñu tënk la lu mel ne siyaamu sitta sawaal xam ngeen loolu yontu moo ko tënk siyaamu sitta sawaal ayaamul biit ngeen yooyu dañ leen tënk kenn ñëpp leen bindi yooyu ñoo gën parce que yooyu dañ leen a muqayyad dañ leen a tënk dañ leen a yeew mu ne fa haza afdal min sawmi muharram yi ñu wax ni moo gën woor weeru tamxarit waaye gis nga waaw gis ngeen ci weer wi tamxarit bi tey la ñaata weeru tamxarit ah ci ci ñenn ñi ñeent ci ñenn ñi ci ñenn ñi ñett waaw waaw ci ñenn ñi ñeent ci ñenn ñi ñett waaye di nga gis ne weer wi yàlla def na ci tawfiix ci ñi war a woor ñeenti fan di nga gis bu ñu wooree ashura ak tasua dañuy enchaîner ayaamul biit salaasa maanaa kon ñu mën a am une semaine koor goo xam ne lépp tiyaaba la ah ci ñi am ñeent bu ñu wooree seen asua ak tasura tasua ak asura dañuy enchaîner direct ayaamul biit mooy woor 3 jours le 13 le 14 le 15 su ko defee ñu am semaine boo xam ne semaine u tiyaaba la boo xam ne jaamu yàlla bi ñu ci am kenn xamul nu mu toll kon loolu ñu fàttali leen ko bu ñu tàmbalee tasua kole ko asura dañ koy kole ci ayaamul biir ndax ñu am dèjà beneen bi ngay amaat foofu mooy amaan nga woor nga ci muharram ay fan yu bari comme niñ ko bëggee nga woor ko gis nga ba pare yàlla bi mu defee ngay woor woor nga bis yi nga xam ne bisu tiyaaba la dañ cee digge dañ cee digge yool dañ cee digge yool bu rëy rëy rëy rëy rëy kon yàlla ñu ko yàlla defal ixwaan yi wa kazalika sawmu arafa wa gayrun min assunan arrawatib afdal min atatawu fi lmuharram bépp jaamu yàlla buñ la wax ci wàllu koor ne weeru tamxarit moo ko gën woor ci tamxarit moo ko gën na nga jàpp ne dañoo wax ne koor yi ngay woor wooru coobarewu amma bu fekkee sunna te rawaatib la mooy rawaatib saa yu ko déggee mooy lu sax lu yonent bi daan def te bàyyiwu na nga yëg ne yooyu ñoom ñoo gën mu ne fa yustahabu kon dinañ sopp lil muslim ci jullit an yuksira min asiyaami mu bëri ci lu mu woor fi chahri muharram ci weer wi ñu nekk muy weeru tamxarit fa in lam yaqdir ala zalika bu fekkee ne mënoo loolu mënoo woor lu bari kon saama ma tayassara lahu na woor lim mën wooral li nga mën te mënoo woor lu bari nga jéem a tànn ay fan comme li ma waxoon sànq ci fan yi nga jéem koo woor fekkee mënoo woor lu bari fadlu siyaami yowmu asura léegi nag am na ci benn bis bu ñuy woowee ci tamxarit bisu asura bisu asura lan moo tax nit ñi di war asura bismillah sallallahu alayhi wa sallam ñuy feete asura ñu koy woor laaj leen lu tax ñu koy woo ñu ne yàlla subhaanahu wa taala ci la ñu musal ci firaw léegi boobu mu ne su ko fekkee vaqué na woor neuvième jour ba ak dixième jour tasua ak asura parce que ñoom ñu gën a yeeyoo waaw.
nalillahi musa mu nga kon sabab bi dégg ngeen li may waxoon sànq mooy borom xam-xam bi wax nañ ne yonent yu bare bare bare bari yàlla defal na leen xéewal ci bis boobu di ashura bokk na ci Muusa ndax bis bi yàlla di labal firawna di rëccal banu Israil bisu tamxarit la woon bi ñu génnee lan la ñu delloo yàlla comme njukkal ñu dem di woor ndax sante yàlla maanaam loolu loo ciy dégg mooy nit bu ko yàlla defalee teraanga lu mu war a def Sénégal rek ngay gis ko yàlla may xéewal muy fecc di fo bu ko yàlla natoo muy jooy moom ñoom loolu la ñu am bu méttee dañuy jooy su neexee ñu fo daanaka sax mën nga wax ne ñun muy métti moo gën ci ñun ndax fii li ëpp ci doomu aadama yi bu ñu amee xéewal rek dañuy bew dañuy jalgati di def lu yàlla santaanewul wala même buñ ko tàmbalee fu yàlla santaane du yegg fu neex yàlla dañuy dem ba déborder ba def ci lu ñu warta def imaginel yonent yàlla Moussa yàlla rëccal noonam boobu di Firawna daal di koy labal waa banu Israaïla génn xam ne yàlla defal na leen xéewal bu rëy ñoom ñëpp ñuy woor ngir sant yàlla yonent bi mu jógee Màkka ñëw Médine mu fekk yahud yi di woor bis boobu bi mu leen laajee ñu tontu ne ko ñun de dañuy sant yàlla ndax yàllaa rëcc musaloon yàllaa ñu musaloon ci suñu noon yàllaa ñu rëccal alak suñu noon ñuy woor bis bi di delloo yàlla njukkal di ko sant yonent bi ne ne man maa leen gën a yay ci Moussa ma fi yàlla bàyyi ba déwén dinaa woor neuvième jour bi ak dixième jour bi muy asu tasua ak asura waaye am na leneen lu tax yonent bi yokk ci benn fan pour pour wuut ak yahut yi ndax yonent bi moom bi ko yàlla yónnee mu ñëw fekk yahut yi lépp lu ñuy def yonent bi wute na ak ñoom wute na ak ñoom ci sikkim ak ay naanu wute na ak ñoom ci julli wute na ak ñoom ci jigéen bu gisee baax wute na ak ñoom ci feet wute na ak ñoom ci xibla wute na ak ñoom ci julli ah nodd wute naa ak ñoom ci soldal ci julli mooy la la waxoon saa wute naa ak ñoom ci moo tax ndeysaan yahudi ñu ne waaw lan moo dal waa ji moom lépp lu ñuy dégg muy def rek dafay wuute ak ñun moom lan moo ko dal gis nga lu mu fekk ñu def mu def leneen bal sax dafa ne xaalifuuhum na ngeen wuute ak ñoom waaw kon bu yonent bi tey nekkaatoon àdduna gis jullit ñi sama waaye fàq daw utali yahud yi di leen di dund seen lépp à la lettre kon dana xam ne sunnaam li ci ëpp réer na ci bëree bëri bëri réer na kon woor mbokk yi ci jouru tam xarit dañoo bëgg jullit bi def ko mu ne yonent alayhi salaatu wasalaam wax na ko saxaaba yi ne leen bu ma yàlla mayee ba ma fekkee déwén dinaa woor bisu juróom-ñeenteel ak bisu fukkeel min shahri muharram mu ne li sunna nag nga woor neuvième jour wala dixième jour wala nga woor dixième jour ak onzième jour ñaar loolu mooy sunna woor neuvième ak dixième ah xoolal foofu beneen bi ci nekk ci weer wi ci xéewal dañu waxoon sànq ne soo wooree neuvième ak dixième am nga am nga taasoo ak asura ah kon waroon nga tëb benn fan ci digg bi xaari le 12 le tre- le le 13 le 14 xoolal léegi ñu ne la mën ngaa woor 9 ak 10 wala nga woor 10 ak 11 kon léegi boo tàmbalee 9 ñëw ba 15 lan nga am ah kon lépp lu ñuy sikki sàkk wala ñu naan bii la ak du bii yow raatale nga ko lépp yow am nga ko moo tax gis ngeen jaamu yàlla bu yàlla chaque jour di defal xéewal ci jullit yi kon ku yàlla bàyyi fii ci ñun da nga fekkee neuvième jour bi nga la waay ñaax ci sa njaboot sa soxna ak say doom ak ñeneen ñoo xam ne déggal nañ la ndax ngeen màng tiyaaba bu mu rëy boobu bokk na ci ñiy naxee xale yi ak di leen ci soññ mooy bu ñu or bu ñu wooree ba ngoon nga organiser leen ndogu bu neex ne leen suba amaat na waaw nga organiser leen ndogu bu neex ne leen suba amaat na suba amaat na suba amaat na ba mu jeex tàkk waaw loolu bokk na ci yenn saa yi kooru sunna yi soo ci bëggee entraîner sa njaboot lu mel ne lundi ak jeudi danga naan leen nañ woor suba bu ñu wooree bu ndogu jotee nga defal leen ndogu bu neex ne leen jeudi amaat na de ana ñuy wooraat bu jaree nga jaar bies doore bu ñuy ndogu nga indaale bu jaree nga indaale firi bu jaree bu jaree lu mu jar ci loo xam ne dina on encouragé waa kër gi ci jaamu yàlla nga def bu yàggee xale yi dinañ tàmm woor suñ la gisee ak buñ la gisul rawatina nag buñ demee ba xam xéewal yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk loolu moo lañ ko dama leen ci soññ di ci soññ sama bopp kon bëgg nañ jullit bi mu woor juróom-ñeenteelu fan ak fukkeelu fan wala bu dëgëree ci moom mu woor fukkeelu fan ak fukkeel ak benn waqad warada fi sawmihi fadlun azim xam ngeen mbokk yi yan tiyaaba moo nekk ci woor bisu tamxarit xam ngeen lu ci yonent bi digge xadis la dañoo laaj abi qataada ñu ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo nettali moom abi qataada mu ne suila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an siyaami yowmu ashura dañoo laaj yonent bi woor bisu tamxarit fa qaala yukaffiru sana almaadiya yooyu dina bàkkaar at yi nga defoon at yi at bi passé bi nga defoon bàkkaar yi yàlla dala koy baal boo waaree bur bis boobu kan ci ñun fi toog at bi passé defoo bàkkaar yëkkati sa loxo ñun ñu toog laa ci biir jumaa ji at bi passé ku ci deful bàkkaar kon def nañ kan moo bëgg yàlla baal ko ko ñun ñëw bëgg nañ ko ah ñu ne la boo wooree benn bis boobu yàlla baal la bàkkaaru at jar na woor wala jarul woor wallaay jar naa woor yu kaffiru assana almaadiya yàlla da lay jéggal bàkkaaru at bu passé est-ce que sa kër yor yaa fa def bàkkaar ah oh kon kay lii waxuma sax sa soxna waxuma sa doom waaye sa papaak sa yaayak képp koo xam ne déggal na la boo waxee mu dégg war nga kaa wax xéewal gi ba mu jël matukaayam ci xëdd ci ndogu xam ne dafa war a woor bis bi ndax kat alaaxira lañ jëm alaaxira moom ku fa yóbbaale bàkkaar dañ ko réccu ndax ci yàlla lañ jëm te buñ demee duñ dellusiwaat te boo demee doo gis ku la may boo manquele doo gis ku la lebal doo gis ku la ne xaar ma jël sama tiyaaba may la foofu jàng ngeen alxuraan yow ma yaxfirul maru min axiihi bis bu nit di daw mbokkam wala yàlla ñim ñu limal wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi ñii yàlla lim ñeenti mbooloo yi boo yoroon kat-kat nga nekk ci digg àll bi nga seen sa yaay te yaag sa chauffeur rek yéen a ci nekk même kat-kat bi bu feesoon nga gis sa yaay ci digg àll bi nooy def kat-kat bi laa bu feesoon nga gis sa yaay ci digg àll bi mu jëm fi nga jëm sa kër te place oto bi fees na te ci digg àll bi nga ko bàyyi ah da ngay surcharge wala nga wala nga wàccee kenn léegi nag alaxira yàlla nee na boo gisee sa sa ñooñu da ngay daw ñeenti groupe yi boo gisee sa papa da ngay daw ndax nit dina bàyyi papam àll mu ne boo gisee sa yaay da ngay daw ndax di nga bàyyi sa sa yaay àll mu ne boo gisee sa soxna boo gisee sa njaboot yàlla nee na ñii koo ci gis da ngay daw kon boo leen gisee da ngay daw ci àddina gis nga loo xam ne day tax ñu mucc nga mucc loo war a def nga boole leen ci te mooy woor taasua asura ak yeneen bis yi nga xam ne ñoom ñoo ci tegu comme ni ñu yàlla xéewalee ci weer wi mu daal di kole nekk le 9 le 10 le 11 le 12 le 13 le 14 le 15 boo ci boole ayaamul biid mu ne bi ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola tont ibnu abbas nee na radiyallahu anhuma mu ne maa raaytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam yataharra siyaam yowmun ala gayrihi illa haza al yowmi yowmu ashura ibnu abbas nee na gisuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy sonn ci koor comme ni muy sonnee ci bisu ashura gisuma ko gisuma ko ci yeneen koor yi lu dul weeru koor yonent bi ni muy taxawee ci weeru koor di ko woor noonu lay wooree asura ndax xam xéewal yi ci yàlla def te yonent bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que day woor asura ndax yàlla baal koy bàkkaaram moom amul bàkkaar yàlla jéggal na koy bàkkaaram inna fatahna laka fathan mubina li yaghfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan moom amul bàkkaar ba pare muy def effort di woor bis boobu xam nga lu tax du pour moom waaye soññ jullit yi pour ñoom tamit ñu toqoo ko pour ñu xam li ci nekk ndax yàlla tabaraka wa taala man leen a may tiyaaba yi ci nekk waaye xam nga ñun li ñu yàlla natoo mooy sunu réew mi au lieu ñu sonn ci sunna déedéet ci bidaa yi la ñuy sonn bidaa yi mooy lan dem jëndi nag waa jàkk ji cotisé nag nag moom wax dëgg yàlla bu mënoon daw génn Sénégal dana daw nag fii néew na de weer wuñ dul rey nag wala weer wu ñuy xëy weer wu Sénégal di toog te rey nu nag gàmm yi lu ñuy rey màggal yi lu ñuy rey cant yi lu ñuy rey ciit yi lu ñuy rey nganale yi lu ñuy rey nag moom benn waay ne da doon tooñ Sénégal benn waay mu ne benn nag dafa tëdd ci mbedd mi bañ a jóg punkalu nag tëdd ci mbedd mi rek bañ a jóg gars yi jël ay yat dóor dóor nag bi bañ a jóg ñu saani xeer nag bi bañ a jóg benn waaye ñëw ne ko diw a ngi ñëw rek mu daw diw moom nag damay bañ a wax turam diw a ngi ñëw rek nag bi jóg daw ndax waajooju ni muy reyee nag yi dafa ëpp waaw yéen nag yéen a xam diw moomu dégg ngeen yéen a ko xam de man de du ma wax turam diwa ngi ñëw rek nag bi jóg daw ndax waajooñ moom nag li mu ci xam mooy rey wala démb sama page Facebook bi may seetaan indo yi ndeysaan ci nit ñuy jaamoo nag dañu jël ay nit ñu volontaire lépp téeméeri nit ñu tëdd ñu sang nag yi takkal leen ay ay ful ay ba mu rafet ay fula fleur rek takkal leen or ak xaalis ak defar nag yi ba mu rafet nag yi ñëw dëgg ci kaw gaayooyu lu ma téeméeri nag dëgg ci kaw nit yooyu ba traversé leen waa nit yooyu ñu ne am ngeen ñu ne leen am ngeen barke gars yi jóg di leen ziyaara ñi ci dee dee ñi dund ñu leen di ziyaara ñi dee ñu ne sacrifié nañ seen dund ndax yàlla yi yàlla yi mooy nag yi ñi dund gars yi di leen ziyaara di leen raay ah waaye nag nag kenn du ko jaamu ndax loolu bokkaale la nag du yàlla doomu aadama yàlla lay jaamu waaye tamit yàlla tabaraka wa taala santaanewul ni ñuy reyee nag yi ci Sénégal ak xar yeeg jur yi comme ñu koy rey xam ngeen rey jaamu yàlla laana allahu man zabaha li gayrillah yàlla santaanewul fenn fenn yenn mbir yu ñuy tuddee jaamu yàlla te du alquran du sunna ñu ciy rey ay nag lan moo tax boo amee gan nga rey loolu jaamu yàlla la yàlla moo ne nga teral sa gan lu tax boo amee doom nga rey loolu jaamu yàlla la yàlla moo la ko sant lu tax tabaski nga rey jaamu yàlla la yàlla moo la ko sant maanaam mboolem jaamu yàlla yi yàlla moo la sant reya mais yeneen yi nag fan la la yàlla wax nga rey yooyu du sunna loolu war nañ ko bàyyi xel rawatina nag ku disee ay nag rey saam yàpp yi joxe toggu cere su tam xarit loolu du diine de ah daala du diine ñu bari dañ yaakaar ne togg cere tam xarit wala dem jënd yàpp ah wala bañ a togg leneen lu dul cere bakkaar la du diine laa wax aada la ba pare du sax aada bu rafet du aada bu rafet tamxarit daal liñ ci digle muy jaamu yàlla mooy woor watu yiñ ciy def ak raay boppu jirim yeeg tusngal yeeg xoolal yëfu dof yooyu ñuy def tusngalu xëy suba di xool jant bi naan Faatimata bint mu ngi mu ngi fóot tamxarit ba tamxarit lay fóot xoolal yëfu dof yooyu rek Faatimata bint xanaa kon moom bëri na yére de kuy fóot at bu nekk benn yoon ah kooku boo amee yére yi tuuti du baax de beneen bi mooy fan lay fóote jant bi xam ngeen jant bi li degeraay tàngam ñaata la tàngaayam wala ñun ñu nekk fii jant bi laalunu rek niñ tàngee waxuma laag nag jant ba ku fa dem distance bi gis nga kii xool jant bi ay bëtam la jant bi jàpp tàngaay bi mooy jàpp sa bët di changer couleur yi waaye amu ci kenn ku mës a gis Faatimata Binta toog foofu naan li ci gën a garaaw na nga gis ku toog naan mu ngi ne la toog dugal na couleur bu bleu subhanallah mel ni dëgg la bi gën a garaaw mooy bu ñu lekkee cere yi ba pare guddi lu ñuy def jal ay suuf ci digg kër gi nga dégg bëm bëm jël benn dànk fanaan ko ci bool bu ñu xëy suba ñëpp sëlmu ci ñu ne ko ci sëlmu doo wànneen ba pare wala ñu jël benn tànk def ko ci ñu ne néew yi boo amee ay mbokk yu dee dañuy jóge dañuy jóge armée li ñoo guddi reer si xanaa néew yi bu ñu doon ñëw sa mbokk duñu lekk benn tànk ba xanaa war lay tegal ay plat yu bëri fees leen waaye benn tànk man bu ma doon néew bu ma ñëwee fekk ñu tegal ma benn tànk dinaa yee waa kër gi yëpp ndulli leen néew bi ca ñaata at lekkul ah néew bi ñaata weer lekkul mu ñëw bi su tam xarit xanaa kay cere bi yëpp sax moom lañ ko waroon jox yooyu du benn diine yooyu ay bidaa yu bon a bon la surtout reer ba pare jal suuf ay bëm bëm doo dem jàpp nga ñaan yàlla tabaraka wa taala nga yëkkati yàlla say loxo ah yi nga jublu penku ndeysaan boo demee màkk da ngay gis ku jàkkaarloog raw do rasul nii nii gars yi ne la al xibla xibla xibla xibla di la tere ndeysaan da ngay gis ci biti jàkk ji taxaw ndeysaan jàkkaarloog jàkk ji bàyyi xibla bi ne jàkkaarloog jàkk ji naan nii am na ñoo xam ne leen di dóor sax ndax li ñuy def araam jullit buy ñaan day ñaan yàlla kenn du ñaan nit kenn du ñaan suuf kenn du ñaan bool kenn du ñaan asamaan kenn du ñaan ndox kenn du ñaan géej kuy ñaan koy ñaan udu allah wa antum muqinuuna bil ijaaba woo leen yàlla te ngeen am kóolute ne yàlla li ngeen di ñaan mu leen mu dina leen ko may yàllaa ngi fépp wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai isa daa waaye di ñaan tàllal mbindeef ku dee wala dem ci ay bàmmeel di ñaan wala dem ci ay loolu ab jullit du ko def kon mbokk yi lii lenn la ci luñ tënkoon ci fàttali mbokk jullit yi ci weer wi nu nekk ngëneel yi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax moo ci nekk te mooy woor taasuwa ak asura yàlla def na nag kole na ko ak yeneen bis yi nga xam ne dañ ko war a woor te soññ nañ nit mu woor ci weer yi lu bari kon loo tële tële boo tàmbalee le neuf fexeel boog nga dem bala 15 ndax nga amaale ayaamul biit ñaan bu yàlla tabaraka wa taala ñun ñëpp mu may ñu wér ak tal ak fekke suñ ko wooree yàlla nañ ko yàlla nangul lépp luñ ci ñaan yàlla nañ ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu fekkee am ngeen ci